maa ngi ñëpp ku leen seen tur sant di sant waa Ndar bi yëpp di kontaan ci teewaay bi parce que c'est la première fois nga ñëw Ndar ndax trop quoi xaw la donc di sant TNT di sant sama sëriñ Moussa di sant borom ak la Abdou Karim di sant supporters yi fi nekk yëpp sant TNT di ñaanal sama yaay di ñaanal sama papa yàlla yàlla xare ko àjjana di sant autorité yu nekk fii yëpp euh, di sant sama grand mère Ndoukhoulé ak ñëpp ñi may jàppale vraiment sama kër ci camara loolu la diis non kii caanam làmb la rek xam nga làmb la quoi daan ni sax taxul nga mën nga mën ko xam nga donc xam nga damay ñaan yàlla may ma ndam rek mais championnat bi lan la jaral sos parce que xam nga nag programme la koy jël ba ba ba pare. le bokk la daanee mu jeex ci yow de. waaw mais xam nga loolu la yaa dogal. lu mu la jaral le 10. bon jaral na ma dama noonu damay entraîné comme mu wax ñëw taxaw xam nga jaaxaroo sama adversaire xam nga loolu la ko mais style bu bees bi lan la ba ñëpp affaire yu weex yi li ci sa bëñ laa wax ak sa

ma jaral Malick comme ni ma la ko waxoon man jullit laa tey buñ bëriwaatoon mu daaram ma yàlla tere damay ñaan ci koom tey laa gën a sandaat suñu borom man jullit laa maag li ma la waxoon du ma di ko du wes di ko waxaat li bi bi ma dafa daanee li ma gën a met suma àdduna 30 secondes yi ma def ci géej ci géew bi parce que daan naa fi ay mbër guddi googu xaw seen mbokk lu ñu fanaane kon tey man su ma ñëwee yàlla teg moo loolu tey man ànd ak at yàlla ma ànd ak moom li ma war a àndal ak làmb li ci nekk lépp kon santal suñu borom la nee na li ma wax rek su ma adversaire la su ma nawle la su ma mag la style li ma la doon bëri jël naa ko ci moom ba si da travail pour ma pour ma ñëw rek xëy na lu ma kon sant yàlla su may morom tey mënoo lim benn te newoo guy gi luuli mënoo lim deux te newoo guy kon sant yàlla te yaakaar naa 2009 laa ñëw ci lamb si sama combat 8 yaa ko def direct kon yaakaar naa kon yaa fa suma tey nekk naa ci xol naa ci sàcc wax ko ci grand bi dafa xaw a bon mais ñi ngi denc lépp rek xam nga rek da ngay dem ba sos bàyyi noonu dara. mais sos sa maay ba daan la mais affaire bi léegi nga yàqule ne gars bu ñu naan day affaire bi. mais daa mel booy bi génne na secret bi de. wan na leen yoon bi de mais est-ce que amul beneen fin bu sos denc pour le 10. waaw non xam nga ñii ay maay booy lañ. xam fii école la rek da ngay ñëw jàng si ñu ne moom réussir na premier test bi boo <laughs> may aaduna you know xam nga santaar yàlla rek xam nga jégalu ñëpp nag franchement alors rendez-vous le 10 ak message bi ngay lancé ci TNT bi da wax également ci sponsor yi parce que y a la Lonase bu nga xam ne ñëw na jàppale leen moom nga sol tey blouson waaw di remercier sponsor yi rek càndum ndax sponsor yi ñooy làmb tay li ñëpp ñu li ñu ñuy wax kenn foogeewu ko woon ñii dañ doon wax ay violence léegi on a changé le mot violence par fair play ka leen joxante loxo pour les photographes on va immortaliser ce moment le ayca sas contre Gouy troisième rendez-vous ce sera le 10 dans le cadre du euh, championnat initié par la TNT sama yaay yàlla ya ko suñ borom bàyyi ba sama di sataat yàlla bu baax a baax naan waa ndar nañu ñëpp nañ ñëw sant jere Saliou jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf di sant sama Abdou Karim maa koy ñaanal bu baax a di ñaanal njabootu sëñ Fall yëpp sëñ Ateer sëñ Afia sëñ Dàqo may galas di gërëm Fall Mboro ngi gërëm di ñaanal sama supporter ni dafa yàgg sonn si man yàlla wàññi ko maa ngi koy ñaanal yàlla xaaral ko àjjana jërëjëf jërëjëf sëñ Saare jërëjëf sa di ñaanal nag sama mbokk yëpp waa Guinée maa ngi woo waa Guinée yëpp waa Sédhiou Sebbe waa Yoroba Kounda Ponk Sintia Ousmane Sëllu Koyada maa ngi gërëm ñëpp di woo waa sama mbokk yu fa nekk di sant waa Ndar bu baax a baax kontaan naa si bu baax a baax ak Serigne Touba waaw. teg combat bu nga xam ne ñëpp dañ la ci jiital ku la ko wax ak ku la waxul lan ngay dalale xelu waa Pikine ak ñi nga xam ne dañuy bëggee Ama le 10 nga war a jàkkaarloog Tapha Tine. amul dara lu may war a dalee waa Pikine parce que sama mag la waaye kon sama waxu démb rek mooy wax sama waxu tay fair play ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla na la yàlla may ndam yéen. I've got 50. Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg lool te wér di ñaanal kilifa diine yëpp sama fan si nekk ci waawoon ak fépp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaare di wax nañ kontaan ci kilifa diine yëpp maa ngi di siyaare sët yonent yëpp yi nekk si monde bi ñëpp maa leen di siyaare waaw Malick di la wax ne kontaan naa trop plaisir avec Ama Baldé mi may dajal xam nga di ko ñaanal wér di ñaanal seen bëgg wér di ñaanal sos ak guy di leen nuyu xam nga quoi du ma ci teg dara kii dama ko respecté comme ni ma respecté woon guy gi ak sos ak ñëpp lamb moo ñu boole ñu fay ñuy bëree comme la ma doon wax du ma ci sensé dara damay bàyyi ba loxo arbitre waaj ma def na ma doon def. naa na fi la bëgg a egg dama fay egg parce que man tamit mun naa la wax sama adversaire dama leen nawloo ñun ñëpp parce que tamit champion la guy gi bëri nañ mu daan ma bëri naa jos daan ko dama ñëw damay ñëw fu ñaan yàlla yàlla may man dam si kawam sama la moom te sama mag lay musa doon du musa bañ a doon sama mag kon moom lu mu wax rek arbitre mo kon moo la mën a waxee rek bu arbitre wàccee dafa yàqam bi ba yàqam bi es bi man lenn la laay gis du loxo arbitre bi loxo arbitre bu wàcc nag ma yóbbante dama dëkk dóor fa ko tas mais Ada su ma déggee ñaan bi ñaan parce que nag ku dàq xeex ni dafa mun xeex car macha allah loolu la fa leer. mais daa mel ni sëñ Tuubaa demoon na géej waaye dañ dañoo wax l'essentiel l'essentiel mooy ku ñeme dëkk ku ñeme dëkku rek dama yàlla xam na ne yonent bi xam na ne dafa am lu mu indi naa ko dëkk du ma mooy loolu kon dëkk dóor beeg yooyu bu dee naa ko ñaan yàlla yàlla may na si ndam champion la sa mag la sa mag la mu waaye l'essentiel. si war jël naa ko sama matuwaay yëpp jël naa ko parce que xam naa ko bu baax a baax moom tamit xam na ma yàgg naa ko seetaan dogal naa maanaam summikaay bu bëri maanaam daan ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg te tamit maanaam sama doomu ndey la boo tuddee sa taaw boo tuddee sa taaw sa doomu nday la kon man combat bi dama ko teg fi ma ko war a teg bu baax a baax di ñaan yàlla rek yàlla may ma ndam waa Pikine nag li ma yónni ba de mooy neuf points yi. mais ñi ma nga taxaw raag ak waaw man pare saa damay tooñ suñu borom suñu borom moo moo ñu fi dajale ñun ñëpp suñu borom te man leeram na pare saa dama koy tooñ man leeram dama koy tooñ di ko jéggalu nag kon tay su ma demee ba mun a jaaxaaru suñu borom rek di ko tooñ wax privé kon dafaati war naa mun a jaaxaaru moom quoi gars yi nee nañu combat boobu non convaincre leen quoi. Malick li ma waxoon après laay wax rek mooy moom bu doon deux heures de temps dama koy seere bu doon deux heures de temps dama koy seere amul lu may yàkkamti du ma yàkkamti sama combat fenn dafa am lu nekk sama ginnaaw te bëri moo tax du ma yàkkamti combat bi di ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may dem si kaw. mais man ñaanaat laa am. ñaata at la am. vingt ñaata. ñaata am. vingt ñaata la am moom moom moom mu ne 12 ah. février 89 la Ama Baldé judd. moom moo nekk mag mën a tenir mën a tenir ñaata minute la wax. nee deux heures de temps du ko combat bi demee mën na ko dégg entraîné na lu toll noonu. mais xale ay temps xale boo koy dàq ji muy daw lan lay naan xale lan lay nooyee. ah wax ko wax ko wax bi man li may yabuma sama supporter ba war a bëri deux heures de temps parce que sama supporter dañoo sonn si moom yabuma ne bay bëri ba bëri wasalaam. mais avant ñeme na ñeme na Tapha Tine de ah Tapha nee na moom yabul ay supporter am. mon ami et frère Ndale Djité le professeur maa ngi mon moment moom à toute l'équipe bu ci kanamee tuuti mag bi nga xamante ni bii waa TNT ñoo ko créé ñoo ko kii yoon yu demee noonu muy nit ñu baax tubaarkàll muy ndaje moo xam ni ku ci nekk mën nga ci gis sa bopp. léegi nag dañuy ñëw noo fii ci stade Iba Mar Diop ah, ki nga xam ni mooy fay Fallou fay moo tëgg moo tëgg fii nga xamante ni bii tudde drapeau bi ki nga xam ni mooy maire Réfone waaye balaa ñuy dem ci biir fekk fa Pape Birima Thiam Dogo ay maanaam. président des amateurs muy El Hadj Cheikh kenn dootu leen ko présenté ak ki nga xamante ni bii euh, mooy Mayoro di xaram xaritam di doomu ndeyam euh, moom lañ taxawal nii Cheikh ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay donc. Cheikh nan nga gisee làmb ji. waaw lan moo naqari lan mooy mititu amateur yi actuellement nii. non temps yii nag vraiment amateur yëpp kontaan na. parce que lin ñu noon si làmb da day fay. mais bokkul ak bi seer yi barki dem ba ngay jooy ca stade yi démb jóg. ma si waxee tamit gis nga yàlla saafara na ko. nu mu ko saafara. mooy li ñu defoon yëpp rëccu nan ko wàññi nañ billets je crois que am na si contentement. te mais Cheikh nan nga gisee maanaam télé yi ak Youssou Ndour. li ma lay wax mooy combat Tyson bi ak euh, ak euh, Gris Bordeaux billets yi wàññeeku na ba nga xam ne yaakaar naa ne loolu sax moo su am. billet yi wàññeeku na Aziz wax na ma ko démb na ma wàññi naa billet yëpp. mais lan nga gis ci maanaam par exemple comme euh, euh, Youssou Ndour li mu def ni télé yëpp dugg leen amul problème ku ne indi caméra ak yooyu mais Aziz moom saa yu kii rek dañ naan danaan benn télé wala ki ma signal il paraît que sax gars yi Sen TV demoon nañ Kaolack mais da leen a départ bu mujj ñu dugg nan nga gisee yooyu programme yi nga xamante ni te lamb suñu powum aada ak cosaan la nan nga ko mën a jàngatee yow. xam nga yéen ñëpp yéen a bokk yéen a bokk li ngeen liggéey. mais je crois que géew bu toll noonu yéen ñëpp ku si nekk bëgg a indi télévision amateur bi seetaan sax du mën a seetaan je crois que ni ñu ko defee ni ñu ko organisé dañ ko war a organisé mu gën a baax benn caméra benn euh, télévision rek waroon na mën a jël lépp ñëpp jël si signal je crois que loolu mooy loolu moo normal soo demee championnat France wala nga dem coupe du monde. mais ñiy direct ñiy différé nag. mais ñiy defar ñu jël si mais ku si nekk soo bëggee indi sa benn caméra. indi sa ñetti nit ñi seetaan kon géew bi dana fees si parce que man damay toog ba si kanam ma gis ma gis yi wàcc li ma gis si journaliste rek ak si photographe damay ne ñii tey lu ñuy bind. kon yow fi mu ne nii maanaam àndoog journaliste yi. ci loolu soo sañoon ñu génn làmb. kooku amateur benn amateur àndu si amateur lu ñu gën a bëgg mooy suñ toogee si géew bi ñuy mën a gis géew bi bëgg gën a gis la mais bëgguñu fu toogee lu mat cinquante euh, caméra tiim leen sans compter journaliste photographie je crois que loolu tamit war ngeen ko defaraat ngeen defaraat ko ñetti caméra ba si ñeent mën nañu téléviser lépp wala nga jël benn da ngay xool 4 avril su jotee benn benn kii mooy RTS mooy joxe ñëpp signal mais loolu suñ ko doon def yéen ñëpp problème mais ku day bëgg a indi ku si bëgg def directam ku mais loolu tamit amateur bi seetaan sax du mun maanaam promoteur yi bëggewuñ ko noonu. non promoteur si bëri dañuy wax ne may naa ñaari télé. mais yow man su ma moomee sama sama sama alal ma tëgg sama alal soo ñëwee yow sa télévision sa télévision tey nga am sa chaîne télévision. kon yéen programme maanaam caméra caméra yu bëri yi arrangé wu leen. non caméra yu bëri ak journaliste si taxaw yu bëri yi arrangé wu la amateur. jërëjëf da nga doo mën a gis jërëjëf. waaw. ayca non euh, Cheikh li mu wax. Ah. dafa nekk loo xam ne bii ñun amateurs yi ñoo ko njëkk a jooy du Cheikh dong moo parce que bu ñuy wax amateuru làmb ñi ñëw ci làmb jee tax nañ la ga taxul ñuy wax mm. comprendre ñi dagg seen billet ñëw ci làmb ji ñoo ñëwee amateur mais ñoo toog ci kër gi ay seetaantat ko. bii cher na yi cher na wax nañ ci kaas nañ ko wàññi nañ ko. parce que est amateurs yi ñu ci bëri nga xam ne ay anciens lañu ñi nga am atu euh, maanaam ay carte yoo xam ne dañ xam ne ñii yàgg nañ ci làmb ji. waaw mais non ñu jënd bi loolu war na am loolu dafa war a am parce que ñun làmb liñ ci def parce que bu fekkee ni sponsor la wala muy mbër mi wala muy promoteur bi ku ci def ci làmb dara rek amateur a tax amateur rek mooy perte ci làmb. mais du sponsor bi du mbërum làmb mi du jaaykat bi du jëndkat bi amateur bi dagg biyem ñëw bu làmb ji tasee ñu xaañ ko bu ñu tax xaalisam mu dagg biyem bay liyem ñëw di seetaan benn plaisir bu ndaw boo xam ne bii motul sax 30 minutes nga ñibbi sa kër yow bu perte dem yow yaa ciy perte. kon mbokk yi ñuy nuyu monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye kooku nga xam ci dëgg-dëgg mën nañoo wax ni mooy buur Jolof Fatim Kourou Ngouille Ndiaye maamam ñu ngi koy ziar bu baax monsieur Aly Ngouille Ndiaye di ñaan yàlla guddal fanam Fissel ak Boy Colobane Boy Fissel moo ngeem moo ngeem bu weex bi Boy Colobane moo ngeem moo ngeem bax bi Boy Fissel daw na jël Boy Colobane lay lay laaw Boy Fissel Boy Fissel dóor na Boy Colobane sa gën a Boy Fissel ak Boy Colobane Boy Colobane daw na jël Boy Fissel Boy Fissel takk ko eh mbaa da koy mbo ay eh, takk na ko Fissel Boy Fissel ak Boy Colobane na ko paake na ko waaw waaw eh la ilaha illallah ay waay doole doxul jàmm waay Hisham Mago ak Docteur Clé ci biir géew wi Kera Garga taw la jël na ko rëpp na deux appuis lay lay la laa soxor Kera Garga xanaa kii moom Kera yi meeloon war a soxla soxor Kera Garga ñoom ñaar jàppante nañ soxor Kera Garga. Garga moo féetee suñ côté suñ côté càmmoñ Soxar moo féetee suñ côté ndeyjoor ndeysaan rëpp na ñaari ñaari tànk yi Garga mbot na ko bañ na takk na ko mbot na ko mbot na ko laa ilaha illallah allah rabi. booy bi ne doo am dara. non day soob rek. maa ngi ñaan yàlla may ndam may ma ndam rek. yan combat nga am. man am naa sept combat. benn defal la. loo koy indil. ah loo koy indil. du ma ko du ma yëngati daan ko. incha allah rabi ah. nee na amoo supporter. Aliou dara xool. masala mais dama jëm ci kaw incha allah rabi billahi wallahi mooy Real waaw Real sama équipe la mooy Real li ma xamul ne Zibra rek incha allah ma de parcelle dañ ma yónnee 1 ba 26 ñoo ma yónnee te 1 ba 26 bu nekk laa war a jox victoire kii nii instant si quatrième victoire bi laa nekk si si quatre laa nekk nii. nee naa amoo supporter. 1 ba 26 supporter boo dee wul sama supporter ay noobu la ñëpp a ngi toog. supporter ñëpp ay noobu lañ dañoo ñëw sangu dañoo ñëw sama yor ma ay supporter ay mbojo ñu ma ay supporter feeraay la ay feeraay. jaan di ko ma ko sama nekk laa arrêté man bandi laa Parcelles ndam rek dama sawar bu baax. mais booy soo ñëwee ngeen xeex yéen ñaar waaw loolu ci moom la dépendre rek mooy mag moo ma njët ci làmb mais tey dina gis lu mës a gis si yàlla. Rox moom mag la dama ko yàgg seetaan lu yàgg muy bëre te man bëreegu ma. tey supporter wuy ma xam nga Ama Baldé maa maa ko aal Ama maa maa la ko non koñ ba ñu waxtaan ñëwal ñu waxtaan ak waaw waaw mooy ci la bokk. ak naar bi soufflé rek. waaw. na xeeb na bëri waaw. ñaari combat ah ñaari combat nga ah ñaari combat nga quatre combat trois victoire benn défaite man may jàpp di ko jël ah man may jàpp di ko jël dama koy roof fii daw ak moom fii daw ak moom fii laa koy roof ma daw ak moom waay waaji ne doo am dara waaji duñ ko may dara booy bi sifflé dañ ciy xam dara waaw. ah. non bu indee xeex ñu xeex bu indee bëre ñu bëre waaw. nee na soo bëggee ngeen xeex yéen ah nee ngeen xeex 10 minutes. non moom day wax rek waxu la rek waxu mbër la rek. ah. Thank you. wayla leen ma morloo jaw lay oo morloo jaw wàlli si naay fallu ñii doo seen moroom menaay may tambule waaw lay njaay waaw lay doo taxaw dama waaw ndeysaan mooy maire de la commune mooy borom drapeau bi waaw kooku mooy Ibrahima Faye Faye Faye maa ngi ñëw ci kaw yaakaar naa ni bawal kenn desut bawal kenn bawal ñëpp ñëw. Fodé Faye ak jamono 2 jamono 2 ak Fodé Faye jamono 2 Fodé Faye ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngay puusante ñoom ñaar. ña nga jaayante doole ñoom ñaar Fodé Faye ak Jamono 2 Jamono 2 ak Fodé Faye ña nga doole ñoom ñaar Fodé Faye moo ñu wan Jamono 2 moo ñu kanam moo ngem moo ngem bu verte bi moo koy bëgg wër koy la ilaha illallah daptaan daptaan sànni na Bébé Mbaye Faye daptaan doran, dooraat daptaan sigil na Bébé daptaan Bébé Mbaye Faye jege damatee baaram ñoom ñaar Bébé Mbaye Faye ak daptaan daptaan Bébé Mbaye Faye doom la mooy Bébé Mbaye Faye moo daan vendredi champion la na ngeen ko xàmme ko bu baax Bébé Mbaye Faye daf daan na ñoom ñaar daf daan Bébé Mbaye Faye na daf ndeysaan ko taxawal nga mën daan Bébé Bébé Mbaye Faye ak Dab Daan takk na ko takk na ko Faye takk na Dab Daan jàpp na ñaari njam bam dëgër Bébé Mbaye Faye takk na Dab Daan atte nañ leen waaw delta ña ngay si ñoom ñaar laa ilaaha illallaah jàppante nañ ñoom ñaar a ah, roofoo nañu waaye delta cawtura delta cawtura delloo nag fa delloowaat nag fa dóor mu daanu de cam de boo moytuwul laay lële laa roofoo nañ ñoom ñaar delta jaw turaa jabaxal na ko waaye demul Babacar As ñëpp a nga fay ñun ak Dingiraay ñu ngi leen di nuyu <laughs> noo gisee drapeau bi. waaw kontaan nañ ci ah bég nañ ci ah, di ci sant di gërëm aussi Fallou Faye mi nga xam ne am xalaat bu rafet bi jël bés boo xam ne daf koy sargale bool-bool yi ah, bool-bool yi tamit ah, ñu sant leen gërëm leen ndax mobiliser nañu ñëw gunge ñu ci bés bi kon am nañu amuñu seen fay yal leen yàlla fay. waaye tamit ñuy sant di gërëm son excellence le président de la république Macky Sall bi nga xam ne dafa jël 400 milliards ne dama koy yóbbu Ila Touba président mosuñu defal loolu waaye tamit ñuy sant di gërëm euh, ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci département de Bambey ci euh, alliance pour la république euh, di sant di gërëm le ministre Mor Ah, le maire de Kër Samba Ibrahima Khalil Fall ak sama nattangooy maire yi ma nekkal ci département de Bambey yëpp mais mention spéciale xale yu Bawol mention spéciale xale yu département de Bambey ak xale commune de Réfane kontaan naa. jërëjëf monsieur le maire jërëjëf. jërëjëf Fallou loo yëg. ça c'est émouvant. c'est émouvant. Fallou. jooy ba tere ko wala moo waral maanaam émotion bi. dama kontaan rek dama kontaan dama kontaan dama kontaan damay sant yàlla damay sant yàlla damay sant yàlla bu baax. mais sa yaram dafa daw ndax Bawol Mbaba Garaas Bambey Touba Toul ñëpp ñëw na. ma yaram dafa daw. waaw fu ma jógee ba yegg si damay sant yàlla daal parce que li yombul. ko rek càmmoñ ndox yi am lu muy génne tànk bi ba ba ko jam jëf jël ndox yaa daw na jëf ñor ginnaaw jëf jël ndox yaa na jëf jël ak ndox yaa jëf jël fekkee ma ci boole ak ndox mu bari na jot jëf ak ndox yaa jëf jël na Nokia sànni na mu ngay xeex Jëf Jël Nokia mépp na Jëf Jël door na ko laay laa Jëf Jël tase nañ ñoom ñaar Jëf Jël ma nga ca Jëf Jël ak Nokia. Birima. Nokia ak Jëf Jël jàppante nañ ñoom ñaar loo ci mënti wax fi mu nekk nii ah technique mooy ma a feeñ ndax fi mu nekk nii dóorante nañ xeex xeexu mbedd ba jàppante fi mu nekk nii ña ku ci nekk am nga ñaari ngemb. Jëf Jël moo ñu woon ginnaaw Nokia moo ñu woon ci jëf jorok ndok ya jëf jorok ndok ya jëf jorok ndok ya ñoom ñaar jàppante nañ ndok ya ak jëf jël jàpp Nokia Nokia ak Jëf Jël Jëf Jël moo ñu woon Nokia moo ñu woon kanam Jëf Jël ak Nokia ko ne jàpp na ñoom ñaar ñu ngay puusante ñoom ñaar ku nekk jaay sa morom doole Nokia ñu dóor si wet gi Jëf Jël caxabal Nokia caxabal na Jëf Jël eh Jëf Jël daan Nokia Jëf Jël daan Nokia tey nag ñoo ngi Mbaba Garage borom Mbaba Garage rapidement rek ñooy nuyu balaa combat yi waaw ñu ngi leen di fay ñu ngi leen fay bu baax di leen kontaan bu baax ci ci làmb ji baax ak kan lay ci sama directeur sama directeur bu ñàkk ñaan bi di meeru Réfane di Jibril Thiaw uuf ma téye ma ba tey ji ba rek dañoo war ñëw rek ànd ak moom ak at jàppale ko ci bésam bi gis nga tey ji ki rek lan lan koy fay te yàlla ko yàlla fay xolam ndaxte amul benn amul benn xarma yàlla ci doomu aadama ñu ko ñaan bu baax yàlla yalla garaat yokk bu baax a baax a baax santan ko bu baax gërëm ni ko bu baax macha allah jërëjëf jërëjëf ndax ndool nga leen di tey am na lu mu sol mooy séréer am na lu mu sànni këll ma ngay ma ngay jat ndeysaan ah ba tàmbalee tàkk na moo njool këll moo moo moo gàtt ña ngay lewatoo birima ndeysaan mbokk yi ñu fii si dimanche 26 avril ndeysaan Iba Mar Diop Modou Séeréer moo ngemboo ngemb bu bi këll gi moo ngemboo ngemb oh dimanche 26 avril à 19 heures et demi këll gi booy séeréer Modou Séeréer waaye booy séeréer këll dugg rek mooy mooy avantage am mais bu taxawee di léewtoo gis nga ak ndaamatu xaar séeréer na jàpp këll gi waaw këll bi nag moo ko waroon xaar këll bi moo waroon a dikk dugg ndeysaan mi ngi may fàttali manga manga su ngeen masaan di bëri mooy daw song la riñaan waaw ci diggante këll bi ak booy séeréer ña nga jàppante ñoom ñaar ndeysaan booy séeréer a ngay jàpp tibb na tànk ba waaye sottiwul booy séeréer dugg na ah war na ko ndomba war na ko ndomba gëlë bi na ko ndomba ah laay dee la gëlë daan na booy séeréer arbitre arbitre arbitre arbitre arbitre arbitre gëlë bi daan na maa ngi sant Baye Djily bu baax a baax a baax. mbokk téléspectateurs yi gis ngeen làmb ji nga xamante ni bii moom la Fallou Faye tëgg fi ci stade ba Mar Diop ci diggante ki nga xamante ni bii mooy këll bi ak ki nga xamante ni bii nag ca dëgg-dëgg mooy booy Séréer. këll bi daan ko jël bu set wicc ñu koy ñaanal jël bi yàlla na ko yàlla na ko jik di encouragé ki nga xam ni mooy booy Séréer di xam ni fekk loxo ngi ci baat rek ca dëgg-dëgg kutt du wees mbokk yi ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Bourama ñaar ci Kër saar di ko yàlla baaxal mbokk yi di gërëm nag ki nga xamante ni bii ci dëgg-dëgg mooy docteur Malick seen ak madame Kiné seen di ñaan yàlla guddal seen fan ci barke yonent bi di nit ñu baax docteur Malick Sène di docteurum ñëpp comme gis rek faj la kon docteur Malick seen ñu ngi lay ziar di la nuyu di lay ñaanal yàlla guddal sa fan madame Kiné Sène waalo waalo bu mag boobu ñu ngi koy nuyu bu baax di ziar Mamadou Moustapha Mbeng maire de la commune de Kër Massar ak ki nga xam ne mooy Papis Diop maire commune u Tivaouane Peulh Niaga di nit ku yàlla baaxal ak ki nga xamante ni bii mooy Mor ba mbokk yi di nuyu nag di ziar monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ah kooku nga xam ne mooy buur tanul fatim kurungu yey mam moom moom moo jolof te balaa mi moom jolof daf fekk mu jariñ leen Aly Ngouille monsieur le ministre Ndiaye ñu ngi lay di la di la ñaanal yàlla guddal sa di siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sunu cameraman Pape Sarr di nit ko yàlla baaxal ah, di gërëm ki nga xam ni moo nekk ca montage booy Mamadou Mansour na loxam Birima le reporter Senegal mbokk yi ñuy nuyu Tivaouane Peulh Kër Massar mbokk yi à ba yoon la ngeen jëf.